kilifa fi teew góor ak jigéen gan ak dëkk mag am ndaw élèves yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax bisimila fii ci Déaly euh, cérémonie bi nag dafa xaw a gàtt waajal wi ñun buñ ko jotee e, wante nag jamono xat ba lii fi nekk xeebuñu ko en tout cas ñu fi teew ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal ñu delluwaat seen kër fekk fa jàmm euh, monsieur le sous-préfet dama bëggoon a wax rek euh, jëme tuuti ci monsieur Cheikh Ndiaye ci ñen xam ko ci papis mi nga xam ne mooy président de l'association des ressortissants de la ressortissants sénégalais de la région de Louga en Espagne di ko xamal ne ko ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ak wérle moo ay collaborateur am ndax Euh, teraanga ji mu fi indi rëy na lool euh, xam naa moom itam bu yaafusoon du am kon nag ñu ngi koy ñaanal fan gudd ak yokk suturaam mook ñi mu àndal euh, élèves itam ñu xam ne lii ñu leen jox seeni waajur ñoo ko def walla état du Sénégal wante comme mënewut lépp yombut ki ñu ko defal vraiment ñu ngi koy sant moo kii mbokkam wax dëgg yàlla buñ ko waxoon leneen tam mën na ko tegale fii kon nag ñoom ñëpp daal am nañ suñu ngërëm wasalaam. chers camarades, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce temple du savoir et de la vertu. Qu'est le sème des Ali ces deux salles que nous allons réceptionner tout à l'heure. Nous participerons à l'amélioration de nos conditions d'études avec la réduction des effectifs pléthoriques. C'est le moment de remercier chaleureusement l'association des ressortissants sénégalais de la région de Luga en Espagne dirigé par un fils du terroir, à savoir M. Cheikh Ndiaye, plus connu sous le nom de Papis Ndiaye. Nous remercions également nos partenaires espagnols de la municipalité de Saragosse. Hoy en este templo del conocimiento y la virtud que es colegio de Deali. Estas dos aulas que recibiremos en breve contribuyen a la mejora de nuestras condiciones de estudio, ya que el maloliente número de alumnos que teníamos puede ser un mal recuerdo. Este es el momento de agradecer calurosamente a la Asociación de Ciudadanos Senegaleses de la región de Luga en España, dirigida por un hijo de Tiruño, el señor Sheikh Ndiaye, más conocido como Papis Ndiaye. También agradecemos a nuestros socios españoles, el municipio de Zaragoza, que trajeron este proyecto con recursos financieros muy significativos. Señores, señoras, les agradezco de su amable atención. Euh, kàddu yi nag xam naa du mën a bëri li ñu ciy wax rek mooy dañuy sant euh, ñi fi indi lii parce que tey euh, Papis fii la juddoo fii la jàngee waaye wan nañu ne ñoom teewal na dëkkam parce que ba mu demee tamit mënoon naa xoole ba leneen bañ fee ñëw mais def na tout tey ba indil ñu lii donc nit ki fi nga jóge fépp foo mën a dem rek représenté ko taxawoo ko tey loo am nga indi ko fii moom wane na ko dañ lay ñaanal yàlla yokk la Euh, defal la man la fay may may la fan gudd ak wér yaram. di wax ne lii sedd na xol trop ci association bi ressortissants sénégalais région de Louga en Espagne ñoo ngi leen di sant bu baax nag su ngeen demee ngeen yóbbante na ñun suñ xol sedd na lool lool kontaan nañ ci ñoom. kontaan nañ aussi ci association bi nga xam ne tey ñoo fa nekk créé ba indi fi lii deux classes yi. ñu leen di ñaanal yàlla yàlla ngeen fi indi leneen lu gën a rëy lu lii lii fi nekk nii parce que am nañ ci yaakaar ndax papis am nañ ci yow yaakaar tey ñu ngi lay ñaanal rek ba ëllëg si biir nga indi fi leneen lu ëpp lii kon monsieur le préfet wasa voilà CEM de Dialy voilà CEM de Dialy dañoo bëgg nag li ñu bëgg mën nag mooy lycée la ñu bëgg pourquoi ma ne lycée la ñu bëgg dañu am problème problème boo xam ne c'est sérieux problème bi muy lan élève bu jàngee fii ba nekk troisième war a dem yàlla mën na def mu dem muy jigéen mu defee neneen loo xam ne ëllëg si bi dana leen dana ca loo xam ne lu koy barrage lay doon élève bu góor bi dana dem ëllëg si mu déplacé su dem feneen su demee am jàngam nam doon jànge duutu ko mën a jàngee mu découragé yàqam njàngam kon ci fii day école excellence boo xam ne école excellence nag doo fi génnee di dem ci yeneen boo demee ci yeneen école rek da ngay daanu kon ngeen jàppale ñu ci lycée balaa yàgg ñu am lycée su boobaa da ngeen xam fan kan mooy diali ak fan mooy da ngeen xam fii ëllëg si biir président dina fi génn pourquoi parce que école excellence lay nekk. di wax nag rek contenté tey di sant yàlla nag bi nga xamee ne bii jur nañ suñ doom fan ko war a jure yare ko fan ko war a yare jàngal ko fan ko war a jàngale mu dem ànd ak benn mbootaayam bu nekk ca réew mu indi fii teranga joo xam ne macha allah yalla na yàlla lafal ko ciat di wax ne li njàng la ndax so juddo ci rew yaro ci rew def ci rew ma dara ñepp dañ lay nawlo rawati nak nak fi nga juddo fi nga yaro papis ñu lay ñaanal sama dom bu jigen bi ngeen andak di len sante di len gërem ci seen botay ku mag ngeen yor ci rew mu ak ba fii macha allah yalla na yàlla lafal la ciat di wax na kep kuy xalé dib elaw nak Nik finak nak sa yaay ak sa papa di sonu ci yow yakarna tay fi jangala mu mat yeen xalé yi nga xamne yeena nek fi di jang indi nan len leçon tay su fekkone won papis dafa dem fofa di jang akatu ak xéssal ba mel nenen yakarna ne du fi ñew di fi indi li ak ñam ànd ak ma sha allah yalla la la di wax na yéen xale yi nga xam ne comme ki njëkk a wax wax na ko Ibrahima crème bi beñe bi caaf li moom ngeen gis waaye la ca biir moo ëpp ku nekk xam na ne bu école di ubbi yaay xale yëpp dañuy sonn ci li ngay solo li ngay jëndee kaye ak yeneen ak yeneen kon suñ demee ba loolu am nag da ngeen a war a joxe résultat. discours bi nag mën naa gàtt rek ndax li ci ëpp kàddu yi cant lay doon. jëmale ci kay li nga ko xam ñi nga xam te ne nii dañoo defal lu ñu mënut muy association des ressortissants de la région de Louga en Espagne. Gallo Bari Diagne dafa wax ne dëkk ci dëkk bi mën a defar dëkk bi da ko gën ndax euh, boo juddoo ci dëkk nga màggee fa yaroo fa dem ba ah, nga góor góor lu ba yàlla may loo des ndax loolay tuddee des ndax da ngay am foo dëkk am loo lekk am loo desal. loolee nag mën nga ko investir bu la neexee ci ñetti fànna benn bi mooy nga dem foo xam te ni kenn xamul fu nga def lu rëy ba léegi day nekk ndawum dëkk bi ak a baax ndax dinaa kii fu mu dëkk ñu ne daal la dëkk kooku wax itam ndawum dëkk ba lay doon loolu baax na lool. wala nga ñëw ci dëkk bi def say fi bopp yoo xam te yow kese yaa ko moom baax na itam ndax day bokk ci liy taaral dëkk bi day xar day rafet xar xar kanamu dëkk bi.

bay len ci xel bu fi dans deux ans nan xana li kaas mi defaron bu une grève ba mer tax ngeen ah euh, yeen ñi xam tane fi aussi bu ngeen fi pouvez lo xam tane ne euh, lu la len ko ñaw ndax yar sa mu guddal sa wëñ rek la lool mom ñoo len ci pas ngeen ngeen ci bu baax baax bi nak appel bu rek euh, le sous-préfet

administration lu fi ñëwati dañ koy bu mbacké boo noonu seen Cheikh mbacké lu fi ñëwati dañ koy bu Taïf té ñaar école yooyu ñoko ñoko jitu donc lolu war na tax rek ñu jëm changer tur bi tudd ko sëñ Abo Mbàkke euh, sëñ Abo Mbàkke bu fekkee lolu nak principal euh noonu sa préfet dañ ci jappalé donc beneen bi moy élève yi yéen li ngeen mëna fay papis rek moy résultat yu baax gannaaw entretien bi ba dara du ci yàqu ngeen am résultat yoo xam ni war na ko ne kat lii dana yokk suñu condition ndax yéen wax ne yéen wax ne seen biir discours ne dana rafet dana tax seen i condition euh, njàng gën a baax suñu condition nag bu baaxee nga nekk sa kër papa nekk sa kër yaay en tout cas ba sorowoo seen kër li koy feere mooy jàng def ay résultat donc ñu ngi leen appel ci loolu ngeen góorgóorlu ci baax a baax a baax zone bi nag préfet 30 euh, écoles fu nekk officielles mais 30 écoles officielles yi 24 ñoo fonctionnelles c'est-à-dire que am na ci euh, juróom-benn école yoo xam dañoo tëj bokk na ci welu mbel fi président maire dëkk Ndiassam Lumbi Walbe Bolboki euh, Nguy Sipet école yëpp dañoo tëj yii euh, parce que amuñu élèves yii parce que amuñu ay jàngalekat donc loolu aussi nag nañ ci góor góorlu te comme ren gouvernement bi dafa jël junni jàngalekat am nañ yaakaar ne école bu tëjoon war naa mën a tijji dëkk bu amul woon école war naa mën a am école. loolu la tax ah fii gën a màgg ba li ñu bëgg ñu am bokk na ci dëkk yi xam ne demande nañ mooy euh, Caabugal demande na école Jébaan demandé na Daaru Salaam ngeen demandé na ci ñool nasuru dëkk yi bari nañ mën nañ fukk demande ba léegi mën na yoo xam ne am na fa 10 ans ci euh, ci inspection bi donc ñooñu ñëpp dañ leen jàppale ñu ubbi ndax école yooyu bu ñu ubbee dana tax euh, fii am gannaaw su amee gannaaw li ñu bëgg muy lycée dina yomb ndax e effectif dana fi am. donc di wax ne rek Papis Ndiaye yàgg ndàpp jeey sama jarbaat di sama doom Sakata Jolof la dëkk euh, adjoint Papis donc yéen waa gox bi ngeen te def ngeen li leen war ndax ba ngeen di tukki yëguñu leen woon ay fonds propres ci ngeen tukkee su ngeen demee donc ba foofa ngeen am dara xalaat. delloosi ko ci askan wi lolu lolo solo donc lolu la wolof di wax picc nga ci ko waaye xel nga ci souf donc bu len neexoon ngeen ñew jënde ko auto yu rafet tabax ko keur yu rafet boba it duñ ci man dara dañ ci am mbekté ndax yeen ko liggéey waaye da ngeen ñew ne yeen da ngeen di dimbale askan wi ta fi ngeen laal fofu la ndax ku bëgg dimbalé askan da ngay investir ci xalé ya ndax souvent dañuy wax ne wax ma yan xale nga am ma wax la suba man réew ngay doon yéen da ngeen a investir ci relève suba avenir u Sénégal ñëw indi seen wàll ci émergence bi président de la république di woote ndax ku wax émergence xam ne éducation bokk na ci pilier yu njëkk yi kon su ngeen jëlee seen alal def ko ci éducation tabaxal lu mel ni am nañ ci mbégte lool professeurs yi nee nañ mbégte mi xam nañ fu mu commencé waaye xamuñu fu mu yem ndax da participer tey ci li nga xam moi c'est une condition de travail améliorer c'est une condition de travail puisque ku ne xam na les les, léeg-léeg dañuy dugg classe bi am ay effectif 80 élèves 70 mais tey ak ñaari classe yu bees yi liggéey bu gaaw bi ak bi mu vraiment am nañ papis li leen di ñaanaat mooy xale yi ñu ngi leen di jàngal naam waaye dafa am loo xam ne nii dafa xew ci jamono te kenn ku nekk xam na ne boo ko amulee toujours analphabet nga mel wuute woo koo jàngul mooy l'internet donc internet boobu amoon nañ yéene di am yaakaar fu ñu ko yaakaaree ku ñu may ñu am benn salle informatique boo xam ne nii dañuy former waale xale yi dès le bas ñu ànd ak outil informatique bi jëm moom ba ba fu seen carrière yam donc loolu ñu ngi leen koy ñaan vraiment lu ngeen ñu ci mën a jàppale ngeen jàppale ko di ñaan également monsieur le préfet le représentant de son excellence le président Macky Sall ñi lay ñaan ne gis nga école bi dëgg la taaru na jege na tali bi waaye dafa bëri élèves yu ko sori am na élèves yoo xam ne nii fi ñuy xëyee di ñëw fii bu digg bëccëgee ñu wàcc dellu métti na tey bu ñu sañoon ñu am fi benn cantine scolaire boo xam ne nii xale yi bu ñu wàccee xéewlu ba pare dem ñibbi mu wàññi leen coono yi bu ko defee bu loolu loolu monsieur le sous-préfet ñi ngi la koy ñaan ñi ngi la koy jàmbat bu baax a baax a baax beneen bi ci topp aussi xam ngeen beneen bi nga xam ne nii tey doléance bu mag a mag la boo xam ne nii tey doléance bu mag a mag la puisque xam nga tey euh, ku nekk xam na ne sport ci jàng bi la bokk dañuy jàng football di jàng basket di jàng handball mais xale yi amuñu terrain buñ ko defee ci terrain municipal bële la ñuy dem insécurité fa lañ nekkee ndax terrain ba terrain vague la mbaam yeeg nag yeeg fas yi yëpp dañu traversé en plein cours prof EPS bi du ma bàyyi ma fen donc loolu aussi am nañu benn terrain boo xam ne ni mairie bi ci baaxam may nañu ko fii mu sës fii ci école bi tey suñ ko amoon buntu la ñu ubbi rek jéggi fa ñi ngi ñaan képp ku yàlla man loo surtout su préfet Papis ñi ngi leen di ñaan ku ñu ko aménageel équipeel ñu ko jox ñu équipement sport ñuy jàngal xale yi sport collectif bi nga xam ne nii nit ñaa ngi ciy tekki ëllëg ndax ñun dañoo bëgg tey xale yi ñuy jàngal Nous sommes ay président de la république nek ay ministre ay sous-préfet nek ay maire puisque loolu que ñu yéene waaye tamit ku ci mën a nekk am Sadio Mané wala am Messi tamit ñu jël ndax donc loolu aussi kon ñu leen koy ñaan bu baax a baax bi ci topp boo xam ne la wax affaire bi ko état bi bloc administratif bi ñu ko fële xatoon na donc fii tabax nañ ko rafet na macha allah yaatu na aéré na waaye ku ne xam na climat Jolof boo ñëwee ñi ñëw ñëpp fee la ñu fekk ci suuf seng gi looloo tax dëgguñu seng gi puisque foofu la péex mi nekk ñuy ñaan ku ñu ko équiper la. Ah, waaw ventiler ko ndax machine ya fa nekk sax amuñu sécurité ndax tàngoor yi day am benn heure boo xam ne nii machine yi sax boo leen taalee boo moytu dinañ lakk donc bu ñu amoon vraiment lu ko seral am équipement bi bu ñu génnee di dana am solo bu même buñ ca mënee am canal plus sax di xam li xew ci monde bi ak yeen la ngeen doxal Espagne buñ ko mënee xam tamit amna am dañuy jël. donc di wax ne rek doléance yi bari na waye xeyna yoyu mom moom yu ma ñor la ci biir te professeur yu bari waxon nañ ma wax leen ko di wax ne rek professeur yi am nañ mbekté lol ci bés bi. am mbekté ci autorité yi dëkk bi muy maire sous préfet ñoom ñëpp niñ ngànke école bi ndax euh, maire. loxoom du fi même ordinateur yi ñu utiliser moom moo fi indi donc. bien vrai que nag du compétence il faut ñu comprendre ne SCM bi du compétence mairie bi waye ñom luñ am indi ko fi donc di ñaan rek comme Moustapha Diagne li ñaan xamna bu boba ñun ñep danañ dem waye bu ñuy dem dañoo bëgg vraiment ñu bàyyi fi aw tur bàyyi fi lo xam ni c'est visible ñu ñu bàyyi aussi way wi nga am ci école primaire ba principal am ko ak équipe bi mi ligéyal fi ndax. ñëpp xam nañ ne li ñuy jox ñu jëlee foofu du mbalit ñun jotuñu ay élèves mbalit moo tax nag lii ngeen ñu defal ak élèves yi ñuy jot ak détermination population bi aw sas la ci ñun jàngalekatu CMDA yi donc dama leen di gën a ñaax ngeen yokk taxawaay bi yokk assistance bi ci élèves yi tete leen di ñaax élèves yi ne leen gis nga ñu ngi wax fii ku jàngal sa yaay wala sa baay jàngalu leen seen yaay jàngalu leen seen baay ku man aw dess ngay maye ku ci man ëllëg nek fi ministre wala bo fayé ko da ngay fajj say soxla bam dess des nga doora a jox sa yaay jox sa baay jox sa mag ñom koy choono bi lañ am di leen ci defal te képp kuy ñëw da ngay solo ba rafet nan ba sour naan ba mandi li ci dess ci yeen la donc dama leen di ñaax ngeen góorgóorlu ndax nit ñi wuñ leen ñepp japp nañ kon jang mo leen war te ci jang ngeen tollu amul won benen ndariñ budul jang xalé ndariñam jang rek la jàng bi ñun luñ ci am mooy satisfaction ngeen réussir parents yi tamit loolu lañ ci am suñ doom ji mën na lii waaye njariñ la yéen la tax ñun dañ leen a yéene ëllëg ngeen ngënk réew mi am réew am njàng ko yor te dañoo bëgg ngeen njàng ba nga xam ne nii bu ëllëgee bu ngeen mujjee pusa bi du leen monsieur le sous de l'arrondissement de Sagata Jolof monsieur l'adjoint au maire de la commune de Déali Je représente le maire Amadou Sow, empêché. Monsieur le chef de village de Déali, Messieurs les chefs de village de la commune de Déali, Messieurs et Mesdames les chefs d'établissement, chers collègues enseignants Monsieur le président de l'association des ressortissants sénégalais de la région de Louga en Espagne et la vice-présidente, chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités, c'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au CMD Ali. Nous apprécions à sa juste valeur cette belle mobilisation malgré les calendriers chargés et les contraintes de la vie. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une importance capitale dans la mesure où elle nous permet, devant toutes les populations de la commune, de rendre un vibrant hommage à l'association des ressortissants sénégalais de la région de Louga en Espagne, avec à sa tête notre frère Cheikh Ndiaye Di Papis et également aux partenaires espagnols de la mairie de Saragosse. Ces deux salles de classe, ces deux bijoux que nous allons réceptionner viennent au moment opportun, comme l'ont si bien dit les représentants des élèves dans leur discours. En plus, dans ce contexte de la pandémie de la COVID-19, avec son lot de conséquences, dont le prolongement de l'année scolaire et la poursuite des enseignements-apprentissages jusqu'à la fin du mois de juillet, l'équipe pédagogique et les élèves de la classe de 3e pourront travailler en toute sérénité, même sous de fortes pluies. Je ne saurais terminer sans encourager et féliciter toute l'équipe pédagogique du collège pour son dévouement et son amour du travail. Merci de votre aimable attention. Buenos días. Soy Ndapuye, vicepresidente de la Asociación Solidaridad Senegalés de la comín de Luga. Y señor presidente, hoy día 10 de julio 2020, estamos aquí presentes para inaugurar dos aulas construidas en el Colegio de Deali. Proyecto denominado Garantizando y Directo eh, de la educación mediante de la aplicación del colegio de Deali. La asociación se fundó en 2007 con el objetivo de construir el desarrollo de nuestra región y país. En el, 2000, en el año 2015 hemos llegado en la cabeza de esta asociación. Desde entonces se ha hecho varias donaciones gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Este sueño se está realizando en el 2019. Se financió la respuesta aragonesa contra el paludismo de 2020, rehabilitación del centro de salud de Gande, muchas gracias a la cooperación de desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza, a las juntas directivas, a los socios de la asociación y de los locales, este proyecto garantizará una buena educación y convencia también permitirá dar un paso gigante hacia el objetivo que es nada más que conseguir un ciclo largo en el colegio. Así solo hará falta salir de la localidad para ir a la universidad. Pedimos a nuestros socios locales una localidad para ir a la universidad. Eh, pedimos a nuestros socios locales un buen seguimiento y mantenimiento de la instalación de las instalaciones. Gracias a todos aquí presentes y gracias otra vez al Ayuntamiento de Zaragoza. ñoo ngi ziar di nuyu euh, bi sous euh, euh, son Euh, di nuyu wa dekk bi di nuyu APE yi di nuyu principal ak euh, corps professoral bi di nuyu tamit euh, corps enseignant bi jiital son directeur Moustapha Diagne di ñew rek touti ci cursus association bi ñoo ngi ko créé won en 2007 suñu kilifa yu baax ñom ñoo dajee toog xalaat ne kat Euh, tukki euh, neex na waaye tamit nit bu génnee dafa war di xalaat lu ñu dajaloo euh, ndax mën a jàpp ci suñu développement dëkk gox ak suñu développement réew ci la ñu créé woon association en 2007 boobu mi tuddoon association de des ressortissants sénégalais du Njàmbur biñ toogee ba en 2010 ñi xam ne kat Njàmbur ak Jolof benn la pour yaatal moom moo tax ñu ne léegi Euh, nañu ko association des ressortissants sénégalais de la région de Louga donc mu ëmb trois départements Euh, ci loolu nag euh, buñu taxawé fi euh di am ay réalisation yu ñu inauguré wala kat ay def-def yu association bi def euh, li ñëk def moy sant son premier président muy suñu baay Kerno Ladiane Euh, jàmbaar la ndax euh, daanaka képp ko xam Espagne rek ci loolu nga ko xam lépp lu muy dox mooy ci luy dajale nit ak ci luy jàppale suñu développement réew donc euh, dañu koy sant bu baax a baax ak équipe bi mu àndaloon nag teg si suñu maam bay daam Ndiaye ñu bari xam nañ ko fi suñu maam suñu lépp moom moo doon deuxième président bi di ko sant ak équipe bam wax dëgg yàlla bi ñu toogee ba 2015 ñu jox ñu ko terewul tamit ñu ànd ak ñun ci liggéey bi bien vrai que suñuy kilifa lañ te tamit euh, réew ma doy na waar temps amul mais taxul ñu bàyyi lépp lu ñu xalaat ci lu baax euh, ñoo ngi koy wax fépp fu ñu xalaat ne bu ñu fa demee gis fa njariñ ñoo ngi koy wax te tamit ñoo ngi sol seen daal di fa dem donc dañu leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla yàggal leen suñu kanam di sant tamit euh, bureau bi ma nekkal di si jiite Euh, sama vice présidente euh, madame Ndapp Dieye euh, comme ni mu ko waxee démb la ñëw daara mais mënutoon a ñàkk ñëw mu bàyyi lépp te tey sax dafa am xew mais nag mu ne mënul ñàkk a teew donc sacrifice yooyu dañ ko ci sant bu baax a baax te loolu day wane tamit bëgg gi mu bëgg Jolof bëgg gi mu bëgg région de Louga ak engagement yi mu am ci association bi donc ñoo ngi koy sant di ñaan ngeen ñaanal ko yàlla dëgëral taxawaay bi di ci teg euh, suñu secrétaire Sangoné Sall moom tamit doomu Louga la wax dëgg yàlla jàmbaar la di ci teg euh, adjoint moo Modou Ndiaye moom il de dakaar mais comme euh, le natif Ndiambour la donc moo tax mu ànd ak ñun ci association bi kooku nag dama koy sant à part ndax bu ñu taxawee fii di réaliser dara moom la ndax bu ñu demee ba gëm ak ñeme dugal ci as dugal ay projet Euh, lépp ci loxoom la jaar jàmbaar la joo xam ne nii lépp lu ma xam wala lu ma man sax ci projet walla leneen moom la day nit koo xam ne euh, iñaanewul partagé xam-xamam ak temps euh, te nit te loolu nag lu lu jafe la donc mënuma ma woon taxaw fii te santuma ko di sant tamit suñu trésorier général di omargasam Gassama il est Daara moom tamit euh, yaakaar naa képp ku fa nekk xam nga ko ak engagement ak dëggoom ak dévouement am ci association bi ak bëgg Jolof bëgg région bi euh, di sant adjoint trésorière muy euh, madame Aïda Diaw moom tamit elle est de Sébikotane mais cosaanam Njaamur la cosaanam région de Louga la moo tax mu bàyyee fa association de association Sébikotane yeeg yëpp ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ndax cosaanam Njaamur la cosaanam Louga la di ci teg suñu saas yi mu ci mel ne Baye Dame Ndiaye euh, Djibril Diaw oustaz Amar Kébé euh, Njaaña Dramé moom tamit euh, mënuñ ko ñàkkalim lim ndax moom moo nekkoon vice présidente sortante te ba léegi moo ngi jàpp si liggéey bi daanaka lépp luñ ko soxla wala mooy suñu conseillère donc bu ñu sante bureau bi ba pare jóge ci réalisation yi fi association bi xaw a def

ci lañ donné woon donation moustiquaire yi 2020 euh, mooy daaw ñu réfectionné poste de santé Gandé euh, tey nag ñu taxaw fii di inaugurer construction deux salles de classe ci CM de Diyali réalisation yooyu yëpp nag mënuñ ko wax euh, te santuñ mairie Saragossa bien vrai que mairie la mais tamit ni muy jàppale immigration ni muy jàppale développement immigré yi dafa saluer parce que chaque année budget bu am solo euh, la ñuy uniquement pour lolu te jamono ji metti na surtout ak jamono Covid bi ni metti na bu len neexoon ñi yemale ko ci dëkk ba parce que soxla nañ ko mais nak sen engagement moy jappalé les pays sous-développés donc té lolu jóguñ ci donc dañ leen di sante di leen ñaan tamit ngeen ñaanal leen euh sen taxaway a yag té tamit euh, collaboration yi ñi am ak euh, les pays africains wala les pays sud-américains Euh, mu gën a yokk euh, ICDES nag jóge fa euh, di sant population de Yaali bi ñu accueillir ñaari classes yi parce que indi projet neex na tabax neex na mais tamit buñ ko accueillir toon ubbil ko ay loxoom jël ko def ko seen yëf du safe donc ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di sant euh, principal euh, ak euh, corps en professoral bi mu ànd ak yëpp di sant tamit dañ koy beral sant muy directeur Moustapha Diagne lii nii bu taxawee mën naa ne cinquante pour cent yi moom la ba ci muy plan yi muy projet bi muy lépp lu ñu soxla ba ci effectif yi ba ci écoles yi nekk nekk ci commune bi lépp lu ñu soxla moom moo ci taxaw ba ci ay photo sax bu mu ko waxoon naaj bu tàng day jóg dem def ko donc kooku jar na sant di ñaan rek yàlla yàggal taxawaay bi ndax euh, ku bëgg dëkk bi la lépp loo ko woo ci dëkk bi da ci dem ba jeex donc dañ koy sant bu baax a baax a baax di ñaan ngeen ñaanal ko ndax jàmbaar la wax dëgg yàlla bu lii sottee lu bëri moom la nag ñoo ngi lay sant bu baax a baax directeur di sant euh, suñu ñaari waajur euh, di sant chef de village di sant euh, maire di sant sous-préfet bu baax a baax a baax ci déplacement bi surtout waaw loolu lu rëy la ci ñun nga bàyyi sa lépp déplacé ñëw assister lii lu rëy la donc mooy wane tamit euh, bëgg gi nga bëgg Jolof ak euh, représent représentation bi nga defal gouvernement bi Jolof yaa ngi koy wane donc ñoo ngi la ci sant bu baax a baax a baax di sant tamit suñu membre association yi bu ñu jàllee ci sant bureau bi di sant membre yi ndax euh, ñoom tamit ñu am solo lañ ci association bi daanaka bu dee déroulé wala muy fonctionner euh, ñoom la donc di leen sant bu baax a baax a baax euh, di santaat waa dëkk bi di santaat surtout nag mairie Saragossa di santaat population espagnole ndax ubbil nañu yaatal nañu boole nañu seen biir ba di ñu jàppale di wër suñu développement dëkk donc euh, duñu mën a def dara lu may di leen sant di santaan ñëpp di santaan ñëpp di sàkku tamit di tàllal loxo yi ngeen ñaanal association bi ba mébét yi mu am ci dëkk bi mébét yi mu am ci région de Louga mébét yi mu am ci Sénégal en particulier euh, ñu mën ko mottali ndax euh, yéene ju rëy rëy rëy lañ am ci dugal suñu loxo ci développement réew mi di leen tàllal loxo ngeen ñaanal leen ñaanal Euh, membre bureau exécutif bi ñaanal euh, membre association bi ñaanal ñep ñoo ngi leen di ziar di leen balu ak bu baaxa baaxa baax ah papis mère ngi lay nuyu di wax ah, mère bi nga xamne moy mooy Sala xaw neen mi ngi koy nuyu bu baaxa baaxa baaxa a baax ngeen jotel ko déggam ngërëmam ak ak cantam ak communauté yalla yàlla ndax gis na ni mu leen teexa ni mu taxawoo ressortissants yi nga xam ne ñoo lekk ci région Louga gis na di nga am teraanga yi nga xam ne moom leen di jox ni nga koy seereel ne li ngeen leen jox lépp indi ngeen ko lépp lu mu leen jox ngeen jëmee ko ci population bi agsi na gis na ko mu commencé ko ca garab ya médicament yi nga xam ne moo ngeen fi indi woon kenn ku ci nekk gis nga ci sa bopp ndax lii mooy li nga xam ne moo daj ñëpp da ngay indi xam ne mooy mooy moo daj ñëpp ken ku nek yokk nga ci garab yi moustiquaire yi kenn ku nek tay ak lo sori so tëdd nga di nga aw yo lawlo ndax moustiquaire ya kon yeen li ne joxoon indi ngeen ko papis bi ci top nak muy nga doolati demaat ba indiwaat fi di nga am koo xam ne jàngal ñi diine indi nga ah bo xamne oustaz ostas ah, tafsir gay pour mu jangal dom arimi diine nga def fi guddigu mak go xamne xam bepp du ko fatte ba mukk kon Papis boobu ba léegi yaa ngi ci dëkk bi rawatina nag ñaari classe yi nga indi fii maire nee na kontaan na ci bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nit bu fekkee mbir dala war yàlla def amoo kàttanam mënoo ko ca bëgg nga ko sa njaboot jooy ku ca wallu defal la ko amoo payam yàlla am pay yàlla na yàlla fay la nee na mi ngi lay bàyyi yàlla mi nga xam moo am pay ndax kat doomi dëkk bi nga waaye fooy woo sa bopp foowee sa bopp ndax bu fekkoon da ngay foowee sa bopp ba nga àggee da ngay fàtte bi bari na say morom yooyu fu ñu dem am fa teraanga fàtte nañ fa jóge woon bari na say morom yoo xam ne fu ñu dem am fa teraanga fàtte nañ fa jóge woon dañuy dem def ko feneen ba ku fa jógee day wax ne ah diw fii la dëkk ñu ne ah fii la dëkk kay ñu ne ah waaye moom te mu fàttaliku waa dëkkam ndax kat moom fa mu ne lam fa def tabax yam fa am di nga ma nga fa amee ay di nga am étage ma ngay luye ay étage ma ngay waaye kër boo demee kër bàyyam wala kër na jaayam nag ay sàkket a fay nekk kon nag loolu dawlu la Njaay jërëjëf taxawu nga sa bopp taxawu nga say wajur taxawu nga sa dëkk taxawu nga say bokk population bi yëpp ñu ngi lay sant ñu lay gërëm village de Déali et l'ensemble des chefs du village de la commune de Déali, Monsieur le maire de la commune de Déali, Monsieur le président de l'association des ressortissants du, de, de, la région de Luga en Espagne et sa vice-présidente, Monsieur le principal du CM de Dehali et l'ensemble de son équipe pédagogique, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves du CEM de Dali, Monsieur le Président du club des directeurs d'école de la commune de Dali, Monsieur Diagne, ainsi que l'équipe pédagogique de son école, Madame la Présidente des GPF de la commune de Déali, Monsieur le Président du Conseil communal de la jeunesse de Déali, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves de la commune de Déali, je suis très honoré ici aujourd'hui d'être là parmi vous au nom de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, pour représenter ici l'État du Sénégal à cette cérémonie sobre mais combien importante. C'est pourquoi nous remercions l'association des, euh, Sénégalais de la région de Louga, euh, euh, basée en Espagne, par le canal de M. Pape euh, ainsi que sa vice-présidente Mme Gay, Cela symbolise, regardant ces deux drapeaux qui sont ici en face de nous, le drapeau du Sénégal et le drapeau de l'Espagne, que la coopération sénégalo-espagnole se porte très bien. Nous en sommes très honorés. Euh, di digital nak le président de l'association des parents d'élèves parce que ñepp wax nañ ko fi taxayam ci école bi ñu ko ci gërëm di ko di gërëm di sant aussi monsieur le principal gis nañ sa taxawaay deug nañ li fi sédé yépp parce que bi ñi li ñaan ñi ñuy seede loolu mooy dëgg di nuy ton équipe pédagogique di nuy di gërëm aussi l'association bi taxaw ñu toog fi tay parce que barké démb bi ma jotee lettre bi euh, yàlla xam nañ ne daf fekk ma wàcc mu fekk ma sama buntu kër may gaare sama auto mu jox ma lees ne ko dinaa ñëw man en personne te yàlla xam ne am na ñaari cérémonie mais j'ai tenu à venir ici à Déaly parce que lii nii dafa am solo parce que ku la jàppale la jàppale secteur éducation jàppale nga vraiment dëkk bi yéen élèves nag maa ngi leen di ñaar di leen gërëm di leen sant parce que euh, boo gisee tabaay bi sax bi ñu fi ñëw ba léegi yar bi ak teggin bi seede na ko bariwul ay camal-camal woo na ne vraiment ces élèves là ils sont vraiment ma leen di ñaan rek mooy na ngeen xam ne salle de classe yi ak yenn salle que lépp lu nekk ci école bi yéen a ko moom tey yéen la ëllëg seen nañ rakk ñoo fi ñëw na ngeen sàmm école bi école bi rafet képp ku fi dugg xam ne école bi am na beneen far xar kanam parce que man ñëw naa fi daaw fekk fi le principal la ak li ma fi ñëwaatee tey li ma fi gis vraiment kontaan naa si décor école bi maa ngi leen di ñaax aussi ngeen gën a ay garab ci école bi loolu am solo la parce que garab vraiment turam bi rek doy na sa garab mooy liy faj kon nañ ci jàpp vraiment bu baax a baax gën a jëmbat garab ci biir école bi. pourquoi école bi ñu ñëw fi tey tamit dama bëgg coopération bu ñu fi ñëwee ëllëg mooy la commune de Saragosse ñu koy remercier bu baax a baax a baax ñu ngi leen di ñaan su dee mun na nekk. bu dee jumelage mun na am entre la commune de Déaly et la commune de Saragosse vraiment nous sommes pour nous

muskalaaf dem bitim réew ñu ràññee ko fa gis ci moom lu rafet ba indi fu am dara teg fii mel ni tey ñu ñëpp ñu ko jariñoo vraiment alhamdulilahi rabbil naa la ñu ngi leen di sant bu baax a baax madame Guèye xaw ma la xam naa ne sagara nga dëkk parce que man tamit arrondissement de Sagara Jolof sagara laa waroon nekk maa ngi daara ba léegi mais vraiment kontaan naa li nga fi ñëwee malgré vraiment coono bi ak lépp nga fexe ba fekkee ndeye bi euh, participer ci lu am solo la ñu ngi remercier mboolam ñu fi ñëw yëpp di gërëm di leen sant incha allah rabbi dégg nañ nag vraiment seen doléance je crois que doléance principale bi tey mooy deyaal yi am lycée du ma naan daa ngeen ko am de mais lépp lu ñu li si mun naa si taxaw incha allahu rabbi mais nag aussi di ñaax aussi sama mbokk yi vraiment école yi tëj yi tamit rafetul parce que boo rombee tey ween lumbel nga gis école bu ñu tabax def ko mur def ko lépp dara manqué ñu école bi toj nañ ko dafa dafa ñàkk ay élèves vraiment lii def ruslu wax dëgg yàlla nañ ci wax bu baax a baax parce que mënta nekk tamit ñu tabax ay école vraiment dañu am ay xale yu fi jàng loolu moo dafa ñaaw def mel ni tey lépp suñu mbokk yi ñëw fi jàppale Espagne ba am ko fi indi ko fii rek ñu naan école am dul ay élèves toj nañ école bi xam loolu dafa ñaaw te nañu xam ne njàng moom mooy lépp suñu diine bu ñuy saagu bu ñuy ndamoo bi mooy diine l'islam suñu borom def na yonent bi igra bismi rabbika allazi xalaq lépp si jàng la nekk kon nak nañu xam ne njàng bi mom mo am solo ñun ñep nañ gor gor lu ci vraiment di leen remercier bu baax ba di remercier aussi vraiment le présentateur le principal di la ñaax incha allah transmettre à qui de droit voix d'alliance pour véritablement ni ngi waxee la salle informatique on a bien entendu bi euh, Pa Aar tamit limu wax ci affaire classe bi am ay climatiseur deug nañ ko excusez-moi monsieur Monsieur Sarr, le professeur d'éducation artistique, vraiment il a fait un très beau discours et les élèves ont adoré à son discours. Ça m'a beaucoup marqué, cela veut dire que entre lui et les élèves, vraiment le courant passe très bien. Donc on, les doléances ont été bien répertoriées, Inch'Allah Rabbi. Nous ne manquerons pas dans nos rapports mensuels de rendre compte à qui de droit et de véritablement jouer la partition qui nous est congrue pour que vraiment l'élève nous entre. En tout cas, lycée lui-même, nekk na dans constante doléance bu gëna forte aujourd'hui ici à Diari nous nous en prendrons compte donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax xëy na nag peut-être bëggoon naa rek ngeen baal ma parce que lolu motax Sénégal gëna a rafet ñu ñëpp mbokk lañu bandiraɓe fulɓe mi salminion goto fof innimo yettode muɗum eyyi eh ɓe yinno weddare erago seedere ko école aji ɗi ganduɗa ene udde e nder commune de deyal vraiment ene muusi école aji wala walla di mbiye uddama saabu sukaɓe fotɓe janngude ngala école aji ɗi te sa ƴeewi fof koye guure fulɓe foti wonde welumbel nande wuuro manggo kala biɗo welumbel miijo hande ko fotino vraiment no demba kani vraiment ko faaro e nder leydi sénégal wiyete école uddama e nder wuuro muɗum ɗo wona hunde yonde ɗum noon bandiraɓe hoto mbaɗen ɗum gacce mais kono tinno mbakkiten sawru mbaggu ɗum jinno erade allah jarama on jarama merci voilà donc dañuy rek dagariban yi pour inaugurer donc pour bi nga les sénégalais les ressortissants

waaw tableau bu yaajo yaajo macha allah fi ñëw xam ne donc ñii ñoo ñu fi def lii lu am solo la lu am solo la donc boobu mooy mandarga bi mandarga bi wane ne alors que kat ñii ñoo fi def lii fi ñëw xam macha allah donc deux salles bi ngi noonu voilà. Voilà.